acca jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat euh, lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax ba ñi ñu topp mun cee jëlee lii di njëriñ loo xam ne kawe na seen njort acca nee naa leen ki may dalaat doon na koo xam ne dañ koy présenter ci biir site bi ndax doon na koo xam ne ku fi ràññeeku la ci diggante li nga xam ne mu ngi ci yëngatu mu di ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk mu ngi ciy def résultat kooku mooy Serigne Mohamed Sylla dinañu yaatal ci xam-xam waaye xew-xew jamono di actualité dinañ ci yaatal bu baax a baax kilifa gii laata may def lenn dugg suma biir programme damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah di wax saddil lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraayi sax sant dayra li xutta mayra faltak fi jawra li man yuraayi jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ñu ngi nuyu xeetu Seydina Muhammad bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jaale taalibe Seexuna Seexuna Ahmada Tidiane seen mbokk moomu bàyyi ko fi muy oustaz Ahmed Ba yal na ko suñu borom yërëm te woyefal suuf ci kawam te jamono ju ne muy wàcce niiru yërmaaneem jëmee ko ci moom ndax dafay koo xam ne si tasaare diine islaam rek moom moo ko ñor bëri na ñoo xam ne si ñu ngi woon ci caaxaan nekk ci po bañ déggee waxtaanam bàyyi nañ loolu ba jublu ci mbaax daan xamal nit ñi kan mooy yàlla ñu nangu kaa jàmm te di ko jaare ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam te yonente bi wax balliqu anni wala aaya jot leen ma sax donte benn aaya la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na bu ngeen àdduna ak li ci biir muy àdduna ak li ci biir mooy jigéen kër oto jur or jama sirkon lépp ñu jox la ko nga am ko li gën loolu lépp mooy kenn nit defaru ci yow moo gën loolu lépp te oustaz ah Mohamed ba bëri na ñoo xam ne si waaroo nañ ci waxtaanam ba defaru kon loolu xewal la ñu ngi ñaan suñu borom jamono ju ne muy wàcc yërmaaneem ci moom te wane la ko ak sangam bu baax bu sell boobu Seyxuna Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu

jërëjëf euh, Serigne Cheikh Ahmed Sylla ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, seni set yooyu tànt ak dal ñu ci kontaan bu baax ak ñaan bi nga xam ne defal nga ko kooku di oustaz bi fi jógee euh, loolu lu am solo la ñu nit ñu ngi ko koy ñaanal ñaanal képp koo xam ne fekk na ko fa rek yàlla yërëm ko taxare ko yi gën a kawe atia dinañ waxtaan ci fukki ponk waaye fukki ponk yooyu dinañ ko xaaj ñaari pàcc ci diggante ñaan ak pàcc bi nga xam ne yaa ngi koy def di ci def résultat yu am solo waaye xew xew jamono hmm, mënta ñàkk nit ñaa ngi topp mbëkk mi gaal yi di dem réew ma ngir li ñu teral seeni bopp ak seeni waajur waaye li fi soqe ko fan yi passé metti na nit ñaa ngi jooy ba léegi te noppeeku ñu waaye cheikh bi li mu gis ba léegi doy na waar dinañ waxtaan ci ñi nga xam ne ñu ngi topp mbëkk mi topp gaal yi aja euh, dinañ dellu siwaat ci wax yu ma waxoon ci diggante président Ousmane sunko laata ñu koy jàpp am lu mu gisoon ci jafe-jafe yi dinañ ci yaatal actuellement mu ci prison bi waaye it nekk fa ci xat yu metti Euh, seen mbokk Cheikh Bara ñee ngi naan mu ci diggante dund ak dee hmm, li xëy neexut de sëriñ Ahmed si la gis yéeme na waaye topp leen vidéo ba mu jeex te léegi ngeen di dégg révélation am solo cheikh bi daam foo xam ne foofu laa na mun ñu tàmbalee mu di euh, lu bokk ci njëriñu ñaan yàlla ci laa bëgg nga baaxee ci lan ci mën a wax. laaj nga lu am solo mooy lan mooy njëriñu ñaan yàlla waaye bala ma laa wax lan mooy njëriñu ñaan yàlla dama lay wax lan mooy ñaan ndax mi toll fi ji toll bëri na ñoo xam si jàpp nañ ñaan yàlla amatul ñaan yàlla suñ borom mu nangul la yooyu ay caaxaan la ay tappal la sëriñ ji toog na dañuy ñaan yàlla di woote woon ne ay sëriñ lañ ay wëtkatu bës ay musicien ay maanaam yooyu la ñu gën a jege mhm. damay wax sax sëriñ yi sax daanaka léegi paraasu journaliste yi la ñu taxawee information boo bëgg a xam daanaka ci ñoom nga koy xamee mhm. loolu tëxat a jug ab sëriñ mhm. léegi mbécc sëriñ daanaka dafa mel ni sabar gu tas da gis koo xam si am maçon la woon man gis naa ci koo xam si am maçon la woon léegi ab sëñ la menuisier bois mécanicien ñu ci bëri daan gis koo xam ne daan nekk ab jàngkat damba ba affaire duxutul mu nekk ci sëriñ loolu moo tax résultat yi néew waaye ñaan moom lu am la képp koo xam yaa ngi koy weti wala nga di ko dute yow moom da ngaa nekk ci gréer waaye moom lu am la ndax yonent bi alayhi salaatu moom la suñu borom wax wa iza zaalaka xibaadi nii fa inni qarib jaam ñii de bis bu ñu leen laajee ana yàlla ji nga xam ne si moom la ñuy jaam wax leen uji bu daawata daahi isa daani moo la wax fa inni xarib maa leen gën a jege sax seen gumu xol waaye lu ñu rek uji bu daawata daahi isa daani damay wuy ñaanu képp koo xam yaa ngi may ñaan waxtu woo ma mën a ñaanee waaye boobu moom mooy cosaanu eh, ci ci diine moom suñ borom subhaanahu wa taala wax na walillahi lasmaul husna fadduko xanaa doomu aadama yi gisuñu man am naa tur yu rafet tur yu jekk bu ñu amatee aajo duñ ma ci woo rek ma wuyu leen loolu wax na ko moom moo tax si Amadou Bamba Xaadim Rasul sax daan wax ni doomu aadama ak suñ boroom ñaar ñi moo leen wutale nit ki lu mu bëri la bari la nga di ko ñaan bu yàgg daf lay jéppi baa mu in la baa mun la dama liggéey waaye suñ borom loo bëri la bëri la doo ko ñaan daf lay jéppi daan wax loolu luy misaal bi maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baax loolu mooy misaal bi ba tey ci diine see Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ba ko tubaab yi bëggee jël si ajuma gi nga xam si moom la taalifee xasida amitu man yaasimuni mina dara ba muy dem ba jéggi tund wi nasaraan yi di ñëw wëlbatiku na xar kanam jàng juróom fukki bismillaahi rahim te yërënt bi waxoon na ko damal ta bu ragal lor waaye lu tax mu gis tubaab wëlbatiku xar kanam jàng juróom fukki juróom fukk ak benn bismillaahi rahim lu tax jàngul benn wala ñaar wala ñett kon lim bi da cee am solo defin wi tamit am ci solo ndax loolu moo noyal xolu tubaab yi ba lam bëgg ci ñoom mu am ko waaye léegi nga gis koo xam sax daan la buñ la convoqué ngay dem fenn boo àggee jàngal juróom fukki bismillahi rahmaani rahiim boo ak benn boo àggee la yaa gañ waa nga gis koo xam ne bu ko defee bu àggee dañ dañ koy tëj toroxal ko fa wala ñu naan la booy xeex ak sa noon jàng ko boo àgg yaa koy man demeen bis boobu la sa noonu gën a am doole ci yow affaire yi ay code la ay secret la xam nga ñaan yàlla yi dafa dafa bëri bu fekkee maanaam julli tàllal say loxo ñaan loolu moom ku ne man na ko waaye dafay am aaju joo xam si faaw nga xooli seexul asraar mooy ko xam si sëriñ bu jàng xilmu nujum ba xam ko nga ñëw mu xam lan mooy sa biddiw jàng xilmu lay asam xam lan mooy turu yàlla xam xilmu xawaatim xam lan mooy xaatim xam mu adat nga ñëw ci moom mu jël sa tur ak sa sant ak bis bis bi nga ñëw wala lam soxla ci yow rek adat ko def ci lim ci def maanaam euh, sa aaja faju nga daal dem waaye jamono da ngay gis ñu bëri ñoo xam ne ci dañuy wër lu ñaan la ba son dañuy gis résultat waaye ñooñu nag buñ taay ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax istaksir min duaayil xayra laka fa innal abda laa yadri ala lisaani ma yustajaabu lahu aw yarham jaam bi na bari lu muy sàkku ñaan di ko jëme ci boppam del bëri looy dem ci nit ñi di sàkk ci ñoom ngir ñu di la ñaanal ndax xawma ba lam ñi la suñu borom di nangoo sa ñaan gi wala ba lam ñi la suñu borom yërëmee ba nangu la sa ñaan googu waaye man dafa am loo xam dafa ko dama ko ñaan sama borom te wóor na ma ni nangul na ma ko ndax dama ko ñaan ci daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xam sa aaji narut a faju duñ jëflante mooy war a aleel nga gis koo xam dee dem ci sëriñ bu ne du gis si jëflante ak man rek na ma sëñ bi lenn moo mett mooy yow lu tax ma yeex laa xam walu tax ma yéex jëflante man lu moo tax képp ko xam maanaam pare nañ ngir jëflante rek yow moom aajoo ma wax ak ju mën a doon ba ma jël décision na dañuy jëflante na sax xel daal xam ne des fois ju macha allah. jërëjëf sëriñ Mouhamed Sylla jërëjëf ci xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu solo yooyu ku xam Sylla Sylla yi xam leen ci ñaan waaye ku leen xamit xam leen ci jàngale samp daara am na solo soo ñaanee war ñaan kon nag il faut ngay jàppale jaam yàlla yi acca euh, dama ñëw ci seet. ñu bëri nag balaañ laa faj balaañ laa ñaan ñaanal dinañ la seetal ba pare ni ko tubaab bi di waxee balaa mu laa defal dara il faut mu na diagnostiqué la ba pare ñu ñëw ci seet bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def. xam nga seet sax man dama ciy taayu communiqué ndax boo ci wax day mel ni lor rek nga man mm-hmm. te seet jamono yi ñu tool nii suñu borom wëcceegut ku ma ko fi dàq ci adduna bi bind na gudd koo xam si mm-hmm. jamono yi ñu toll yaa ma dàq seet. dëgg la nag wa faaxu kulli siihin min almi lépp loo xam di nga gis ku ko gën a maîtriser waaye seet moom suñ borom daf ma cee may euh, gars yi nag seet yi ñu def bëri nay façon loolu ay euh, am na ci yoo xam sax wérut comme nga ñëw ci nit ki mën la un ba un jël ci benn chiffre nga jël quatre léegi bu la waxee quatre bi luy njariñ li léegi yow bu ëllëgee boo ñëwee doo jël quatre de beneen chiffre ngay jël kon seet googu wérut waaye seet nag moom lu am solo la bépp mbir boo xam yaa ngi koy dugg umpale la cee xew seet moo la koy mën a xamal ale nga gis doomu aadama boo dugg ci mbir dem ba ci karam am ñu tëj ko ci prison danaan mbir mi bu muy xamoon nii la demee du ci dugg la ko waral mooy dafa dugg ci làmbatu seetut kon nit ki jamono ju ne dafa war di ay mbiram ndax seet man dama bu ma la koy dama lay wax li nga xam dund nga ko ba ko ak li nga xam ne yaa ngi koy ak nga xam ne si ngi sa kanam surtout li nga xam moom mooy wàllum sëy <clears throat> doomu aadama bala mu cee dugg euh, daf ko war a seet am na ñoo xam sax bu ñu lay seet dañ naan la kii euh, ngelaw la yow Euh, lii ni suuf nga ñun la ñaar yooyu baax na ngelaw ak suuf baax na waaye kan moo leen mën a gaa euh, kooku dafa lu tax muy garanti na xam ne dee baax ba faaw jëmale fu kenn xamul loolu mun la nekk comme ni misaal bi ma la ciy jox di nga gis doomu aadama nit nga gis ko mu baax lool ëllëg nga gisaat mu soppi ko ba nga ne ko xanaa kii diw diw di nga gis ñaar yoo xam bu ñuy bëggante seen sëy bi de seen bëggante gi maanaam ci ngoro gi day neex lool ci jàmm la ñuy neex waaye gis bu sëy bi amee jàmm dootul amati loolu dafay daal di am comme euh, misaal bi noonu rek waaye seet moom euh, képp koo xam ne si maanaam euh, moom mooy sa yitte boo ñëwee bañ seetal la ba noppi ma damay wax bu ma la seetalee ba noppi man ngaa toogaat sept ans yoo xam si jërë ngay jërë ngay seetlu fan yi jaar rek dafa am loo xam si benn jigéen ju ma woon am mbir mu muy fàttali mu yàgg sax dafa ma mosa woon a ma sëñ bi dama bëgg nga seetal ma ma seetal ko wax ko li nekk ci moom lépp daana ko waaye lii taxulaa jug li la tax a jug mooy da ngay waaj a dugg cib sëy mu ne ma looloo ma taxoon a jug nag ma ne ko waaye na nga xam ne dese na la ñetti at pour nga sëy munu ma yow sëñ bi yow ku ñeme yàlla nga ñi ngi nii di ma waaj may ba ñii di ñëw nga naan ñetti at keroog la ma woo ma ne ko affaire bi nu mu demee munu ma dañoo dem ba ñëw sama waajuru jigéen bañ sëy bi ñu toll ñetti at yi dafa euh, mat rek may door a am jëkkër sama xel door a dem ci yow seet moom euh, moom ñu ngi ci def yu am solo yu am doole macha allah. am na solo bu ci yaakaar ne foo ci nekk nag yaa xam nga nekk ci biir réew mi walla bitim réew soo jokkook moom rek dina la seetal seet bu wër kooku mooy sëriñ Serigne si la atia damay ñëw ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee te xam naa lii moom sa mënin la mu di fay wax ku bëgg fa mooy laaj nga lu am solo wàllu fay wax mooy koo xam si dafay waaj dafa bari nag ay façon nit ki mën na di waaja dugg cib sëy ay coow judd ci bari ci lool ba nar yàq lool wala maanaam nga nekk ci bërëb di liggéey ñëpp teg la bët cool yi bëri seen i yitte seen i mbébét mooy nga jóge foofu yàqal la cool yi bëri lool euh, loolu yor nañ ci loo xam si bis boo ñëwee bañ ba nga jox ñu tur nit ñi nga xam ne ñooy coow bañ def ba dagg ci xaatim ba dugal ko ci dañuy taal dara ba mu tàkk rek ñu fayee ko ko ni sawara si fayee noonu lay wax ji fayee dootoo déggatu ko waxati lool. même ku am lante prison. noonu lay demee bu buñ la ko fayalee kooku duutul waxati ci wàllu yoon dara dara dara ngir yóbbu la fa. wala maanaam nga am mbir moo doon amee xam sax du wàllu maanaam nit ñu bëri ñooy coow ci yow dee am mbir moo xam yaa ngi koy nëbb am ku ko xam. nga xam ne kooku bu ko waxee coow mën naa judd man na laa yàqal lu bëri imma ngay am koy waaju bëgganteel am ko xam si xamal naa dara nga xam ne bu ko waxee wala leneen leneen mën na laa yàqal lu bëri nga bëgg a tëj làmmiñu kooku kooku boo ñëwee bëy laa jël bu ma ci xam nga bëy dafa rëy làmmiñ bu ma ci defee li ma ci def kooku moom ba ilaa yomi diin loolu du du ko wax acca dégg ngeen fa mu daanelee bu ci kenn am benn jafe-jafe réew mi bëri na coow yu fi amoon yoo xam ne da ngay xëy xëy doo ko déggati mel ni mel ni mosu fee jaar atia ñu jàll ci beneen ponk yaatal bu baax a baax damay ñëw ci li nga xam ne ñaa ngi koy waxtaane fu nekk mu doon tawat ci ñoom ma ne xanaa dañoo gisut kii di Serigne Mouhamed Sylla wala jëflante wu ñoo moom ndax ñi jëflante moom ñu ngi koy seede bu baax a baax mu di néew kàttan bi nga xam ne euh, lëmbee na waaye li ci ëpp ci ndaw ñi rek la. Euh, néew kàttan moom li ma la ci waxoon rek laa lay waxaat. su ma sañoon du ma wax bu kenn dem ci benn sëriñ di faju wàllu faiblesse sexuelle bu ma sañoon na ñëpp ñëw mos ci garab yi may jox ci wàllu kattan mm-hmm. ndax kattan yàlla dogal na ni moom maa ko dàq ci réew mi mm-hmm. xam nga faiblesse sexuelle dafa bëri ay façon mooy wàllu new kattan dina ci am koo xam bi mu yor dina jug dina dëgër waaye day gaaw a daanu moom la ñuy wax éjaculation précoce mm-hmm. dina ci am koo bi mu yor bu jugee du dëgër day jug rek nooy daal di wàccaat dina ci am koo xam ne bi mu yor dina jug dina dëgër waaye bu demee ba ci soxna si awra bi dee wàccaat mu téye ko di ko dugal wala soxna si téye ko di ko dugal boobu ni ma ko daan waxee rek bokk na ci ci gën a bon awra bu dee baax na nam mel na nam war a mel bu ñëwee ma war a dugal boppam loxo amu ci yoon euh, dina ci am ko xam si bu séqi jigéen ba noppi dee dañ ko doon dóor yat bu pare bu amee benn daanu dee mel dañ ko doon dee sonn nga xam mën naa toogal lu toll une semaine door a maanaam amaat xemmimteef ci ci jigéen dina ci am koo xam si sax bu bu séqi jigéen tuuti lay génn ci sperme xam naa loolu côté wàllu am doom la am ñoo xam ne bu ñu génne sperme mën nañoo génn lu bëree bari mooy war nga gis koo xam daa mën na di séq jigéen ni di ami doom te taxul mu doon góor nga xam soxna si dee tas tam ci kaneen séq ko daan ko àgg nga ma fu ma góor musta àgg te daan na ami doom Euh, kon maanaam du gaaw a daanu mooy tax euh, euh, ñàkk bañ a am doom nit ki mën na di gaaw daanu ba noppi di ami doom nga gis koo xam si mën na yàgg ci kaw jigéen te pour mu am doom day xaw a jafe loolu wàllu sperme loolu lépp maanaam dafee maanaam spécialisé en faiblesse sexuelle rek moom moo ko mën a faj wàllu faiblesse sexuelle moom dafa dafa dafa dafa bëri dafa bëri torop waaye ci tënk rek waaye dama cee yor ñaar mooy ki xam si dafa bëgg tàng léegi léegi léegi maanaam mën a yëg bopp mën a dem bu baax damaa ñaar laa ñaar laa mën a jëflaan nga ñëw na ma sëñ bi damaa soxla lu ma tàngaloo léegi léegi léegi ma mën a sëyi ba ba ndaw si doyal ma jox la sama garabu ngóor gi tudd du ba du baale nga jël ko daf résultat léegi léegi léegi boobu moom kuy céetal wala maanaam ku yàkkamte am irsan moo ko tax a jóg wala nga ñëw na ma sëñ bi dama bëgg maanaam tàggalikoo wàllum néew kàttan dama bëgg ma jox la sama garabu ngóor gi tudd delloo ma samay 18 ans nga xam si boo ko jëlee da ngay am kattan ba ëpp kattan gone gi door a am 18 ans mboolem luy waral néew kattan lu nekk sa biir daf koy dind ba mu set wi ci lii di ko dem toilette lii di nga ko tuur ndox. faiblesse sexuelle euh, man xam naa ni ñu koy fajee ci alxuraan xam naa ni ñu fajee ci sunguf xam naa ni ñu koy fajee ci reen même ba ci mala yii bu ci nekk xam naa nes lañ ciy jëfandikoo ba mana a maanaam euh, dafal nit ki am kattan lu ci mel ni nag wala maanaam gileem. wala li nga xam ne si moom mooy fas wala yeneen yu ci nekk rek maanaam am naa ci xam-xam ci wàllu faiblesse sexuelle euh, ba ci wàllu jat bu ko defee ki xam ne daf ko judduwaale sax ah. man dama koy saafara ki xam ne dafa juddu ba mu nekk liir la ko affaire bi nga xam daf ko judduwaale ci biiru yaayam ah. nga xam dem na ba nekk mag maanaam musta yëg boppam kooku bu ñëwee dama koy faj léegi nga gis ñoo xam dañ naan la bi ñu judduwaale dis ko mën a faj ah. waaye loolu wax ju yàqu la ndax ñun yonent mooy suñu référence te ci moom dañuy dellu moom mu ne li kulli daa in dawaa alimahu man alima bépp jàngoro des kee saafara da nga koy mën a faj ñu xam ne mën nga kaa faj wa jahiluhu man jahiluhu munoo kaa faj ñu xam ne tamit munoo kaa faj mooy nga réere ko ñu xam ni réere nga ko waaye tawatu sangam du wér loolu bokkut ci ragal yàlla bokkut ci mante loolu gàtt xam-xam dëgg la ki nga xam daf ko judduwaale bu ñëwee eh, loolu ab jat la bu ma koy bind ci kaw xeer laay toog xeer wu wow bu ma ko bindee ba jox ko ba mu naan ko ci saase dafay daal di yëg boppam te awra bi dafay jug dëgër bu baax a baax a baax a baax bu ko defee sama bi nga xam ne moo tudd delloo ma sama 17 ans boobu moom ku ko jël moom da ngay wér peleg maanaam mag mu dem ba am soixante-dix ans la alors néew kattan bu ko jëlee dafay am kattan ba ëpp kattan gone door am 18 ans li am solo daal mooy awra bi di teel a jug ba noppi dëgër am na ci ñoo xam jigéen mën na leen raay vingt minutes wala trente minutes ñuy door a jugale yooyu yëpp maanaam ci wàllu faiblesse sexuelle la bu ma ci kenn woo ci suuf wala nga may sonal ci sama numéro numéro Serigne euh, Mohamed Sylla mu ngi noonu ci baaru d'écran bi. nee naa leen euh, numéro bi mu ngi noonu af suufu baaru d'écran bi ñett yi nag li fi jafe moom moo koy faj ci impuissance sexuelle mu ne ñi nga xam ne dañ ko judduwaale ba ñu bëri jaaxle ci moom rek laa ci mos a dalal mu ci mën a waxtaan suñu borom dénk na ko siru bi wala mu dellowaat la ci sa 18 ans mu di loo xam ne lu jafe la du baale bi itam mu ngi fii ci Serigne Mohamed Sylla nee naa ngeen jëflanteeg moom atia cheikh bi damay dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk ñëw ci nopp bi nga xam ne yaa koy def sa mbokk sëriñ si ñu ngi koy waxtaane de waaye teñ ko bàyyi ak yow nga nopp sax dafa nekk loo xam dafa jafe wax ko ci làmmiñ yomb na waaye liggéey ko dafa jafe ndax ñu bëri dañoo jàpp ne liggéey doomu adama jàpp ko dafa dafa yomb doomu adama suñu bëri dafa jël temps ci moom na ko karam naa ba ni yow dama laa teral ñu bëri dañ naan sax ki nga xam si gëmul yàlla sax yomb naa ja waaye bari ñoo fi gis ñu naan dañoo bëgg a noob lu tubaab buñ ko noobee bis boobu la leen bu fekkoon fañ doon liggéey tubaab bee ko moom wala mu am fa dara da leen di dàq sax day mel bis boobu la leen gën a bañ bari waa na koo daan gis mu naan la sama soxna si dama kaa bëgg a def noob day bis boobu la koy soxna si gën a jéppi bis boobu la koy gën a en bis boobu la koy gën a aaye boppam kon noob dafa nekk loo xam dafa jafe suñ xëy xëy na damay jaar fii jàpp doomu adama maanaam loolu dafa nekk loo xam dafa jafe ndax suñu borom dafa bind doomu aadama ko innaa ja'alnaaka xalifatan fil ard yow yaay ki may uti ci kaw suuf kooku ni ko da ngay xëy xëy rek jàpp ko waaye bu dee góor la am na bind bu ko yàlla bind boo xam boo jaaree foofu mën ko jàpp bu dee jigéen la tamit am foo xam boo fa jaaree mën ko jàpp lépp loo xam nit ki xam na ko rek boo ko sante dafay jubali foofu ci sensé daf ko waaye lépp loo xam nit ki xamu ko rek maanaam daf ciy nekk loo xam maanaam dafay làmbatu pour nga gis ci résultat maanaam dafay xaw a jafe waaye nopp man euh, ci lii laa koy liggéeyee lii mooy aliwo xànjar su ma ci daggee xaati bi ma ci euh, deret nag laa koy bindee ni ma ko yàgg waxee waaye deret dégguma deret laa koy waaye deret ju dagan la deret ju daganul mënu ko su ma ko jëlee deret ba bind ci xaatim bi ma ci euh, xaatim bi ma ciy bind ba jël fourne daf ci xal ba teg ko ci nii yow moom liñ la sant ba liñ la sant bala ngaa tëdd cib lal di ko def bu dee ku jigéen la nga di ma nga di ma noob la sa borom kër sa borom kër jékki-jékki sa bopp euh, téye boppam ci yow du la defal dara nga bëgg cofee la ma mbëggee la ma gën a yokk ci yow mu toog sa wet su ma la ko defalee balaa jant bee so mboole lu mu jàppoon ak lu mu mën a doon dina dikk bàyyi tagaan daal waaw ñëw bëgg la ba maanaam ba mel ni tay la lee door a xam ñi bëri ñoo xam bu ma leen ko defalee seen jëkkër bu fekkoon 18 heures lay wàcc 16 heures lay wàcc ñibbisi waaw wala nga am sa soxna bu dee dafa dem loolu duñ ko def noop dañ koy def wooj mu ñibbisi maanaam misaal bi la ñoom yi ngi mel ni maanaam gone bu taxawoon fee di la saaga di la def wax loo xam daf la metti dañ koy naxtaan bu ñëwee ci nga koy defee li nga koy def dootul dootu ko defati dama la ko defal wooj bu ñëwee ma defal la ko nopp jamono ji ne mu di la sopp di la bëgg di la bàyyi xel man nag nopp bala ma kaa am na ci beneen boo xam si sax bu fekkee ki nga day doxaani di taxawaalu di topp gone yu jigéen ñi loolu am na ci beneen bu ma ci def boo xam si bu ma amee dàll dàllam wi du nekk ñaari dàll yi nag benn dàll wi bu ma ci xam naa doo wax ban la ndeyjoor wala càmmoñ wala kód la kooku yitti war dinañ la wax ci ban la bu ko defee bu ma jëlee benn daal ba def ci li ma ciy def sa jëkkër moom su wàccoon bu ko président woowoon bala moo dem day ñëw ci yow gis la ba noppi door a dem ñaari dàll yi nag boo ko jëlatee dootu doo dootu dootu dem ko tax xam nga man nob yi ma ciy def bëri na lool ndax ni niñ koy defee ci pël xam naa ko niñ koy defee ci bambara ci joola ci soose ci séeréel bu ci nekk xam naa ko waaye dama naan noob sax man képp ku ma koy defal doo ñëw rek ma defal la ko ndax yi ma ci yor ñëw tàng boo ñëwoon dina dinaa xam yow lu wóor moo la tax a jóg bu fekkee sa digganteek sa soxna la su ma la ko defee sa soxna yaa koy suuli maanaam tas nit dam fa nen dootu ko def bu fekkee yow daa am koo doon bëgg nii seen diggante yàqu nga bëgg maanaam mu gën laa bëgg bu ñëpp taxawoon baayam ak yaayam ak mbokkam ñëpp bàyyil kii du tax mu bàyyi la loolu bu ma la ko defalee kooku par force dina boot sa doom mooy par force maanaam di ngeen sëy ba di ngeen ba di ngeen mën a am doom ale nga gis ko am day génn kenn kenn ndeysaan jël alalam jëpp def ci moom xëy xëy maanaam ñu jaxase kaak ndaw si ndaw si téye boppam ci moom fekk na loolu nekkul mbëggeel mhm. gis nga nit ki bu la bëggee bu nit ñëwoon ci moom naan ko bàyyil diw kooku lay bàyyi du la bàyyi loolu loolu mooy loolu mooy mbëggeel noob moom ñu ngi ci liggéey yu am solo yu am doole ale nga gis ku gàtt xel ko xam naan la liggéey nit mu bëgg la yooyu baaxul yooyu ay caaxaan la ay tappale la fekk ni ko xelam moo gàtt yow koo xam sëy na fukki at wala ñaar fukki at am ak sa borom kër ay doom sa borom kër xëy xëy tee boppam ca wala mu takk keneen bàyyi la mhm. ko doo ko noo mu toog sa wet lu yor jox la wala ay léeg da nga gis góor ñoo xam dañuy ñàkk fayda buñ buñ nekkee seen soxna buñ ko mayee téléphone nii buñ nee ba ci kër ba xuloo dañuy nanguwaat alal jooju nga xam ne yow dangay ngay génn ci mbedd ñu naan sa jëkkër dafa baax sa jëkkër dafa tabe te yow loolu doo ko gis ci du ko du ko siqi waaye maanaam képp ko am yaa ngi def loolu rek bis bu ma jotee sa tur rek yow moom euh, sa soxna di nga ko fonk di jamono ju ne maanaam ci lu koy neex rek nga nekk waaye beneen bis ne mooy jigéen nañ nangoo toog seen néegu sëy tey sëy te maanaam bëri na jigéen ñoo xam te seen sëy tas na sax te seen yaay ñoo tax sëy sëy bi tas seen yaay moo leen woo bu leen nangu te dafal nangam kon jugeel foofu nangam ak nangam fekk ne yow ku jigéen ko boo jëfandikoo woon sa xel ndax da gis ni sa yaay ba ko sa baay yore ba léegi bàyyiwu ko kon yow maanam bul nangu maanaam ñu di la yàq ñu ñu tas sa sëy bi waaw wàllu noob moom ñu ngi ciy liggéey yu am doole yoo xam te képp koo xam ne loolu rek moom mooy sa moom bu ñu la ko defalee jamono ju ne koo daf lee sopp daf lee topp daf lee bëgg daf lee bàyyi xel kon euh, sama mbokki jigéen ñi boole naa leen nag euh, Serigne Mohamed Sylla ci ñi nga xam ne dañuy tàggoo ne séminaire nañ dem ñeen ñi di guddee wàcc di tag tagaan wala ji dox ci naka sudut noonu <laughs> su la defalee nopp nga xam ne nopp bu yéemee am na aja dama ñëw ci protection mu di kaaraange donc nga xam ne jamono ji ñu toll nag la ko gars yi war a sàkku ci képp koo xam ne wóolu nga ko rek demal ngaa ñaan ñaan la ci ko ndax dëkk bi moo tëradi. waaw kaaraange moom ñëpp ko war a wut ki nga xam ne si maanaam ndaw la bëgg àgg fenn waaye doomu aadama dañ ci gis ñoo xam ne si bu ñu nekk ci bunt aduna wala ñu nekk ci mbir muñ bëgg dañuy bàyyi ba ñàkk mbir moom door a wax ne man de dama jugatoon si ci sama bopp protection moom daf lay protéger ci lépp imma sa kenn du ko mën a tas imma sa liggéey kenn ko mën a yàq euh, maanaam kenn du la mën a liggéey maanaam protection moom bu ñu ko waxee lépp dugg na ci biir waaye bi ma ciy joxe ab ndomba la am na ci beneen boo xam ci tamit sangat la bu ko defee dafa am ñoo xam dañoo mën a takk am ñoo xam mënuñoo mënuñoo sangu am ñoo xam ndomb sax boo leen ko joxee buñ ko takkee ni mm-hmm. sangat bi boo ko jëlee boo ko sangoo di nga toog juróom-ñaari at yoo xam si yaa ngi kaaraange waaye bu juróom-ñaari at da ngay da nga koy sanguwaat bu dee ndomba gi moom mi ngi ci yow moom mm-hmm. moom yaa ngi kaaraange bu ni ma ko daan waxee nag waxuma na ñëpp dëng waaye ndomba gi boo ko takkee ngër juuba nga dëng ñoo ci yam loo mën a def ci àdduna deesu la tëj moom ndomba gi te maanaam li nga xam ne mooy wàllu fitna da ngay jiwaloog moom comme boo toogoon ci bërëb nii dangay ngay dem ñu door faa génn paaka bu dee bërëb boo xam yaa ngi fay ñëw armu dee génn ba nopp ngay door a agsi jamono ji ne maanaam da ngay jiwaloog moom doo faatoo ci accident doo nekk ci néeg muy tàkk moom wàllu ndomba gi boom boo ko takkee moom laa doo xamal la fii bëri na ci ñoo xam si daf nañ loo xam si képp ku ko def ñu tëj leen ba damu ceebi buñ ko defee ba nopp seen xel dal ñu tëj di nelaw daa fekk ne maanaam ndomba gi lañ takk bu fekkee moom wàllu kaaraange rek rek rek maanaam euh, ndomba gi moom moo ci doy waaye moo ma ci doy waaye da gis ñoo xam si duñ teel a jug seen bopp dañuy nekk ci jàmm nekk ci xéewal nekk ci fàtt yooyu yëpp ba nekk ci jafe-jafe maanaam wut kaaraange te gis nga fii Afrique la fii gaa yi bu ñu la gisee ngay tàmbalee jëm kanam dañ la liggéey liggéey nit jàpp comme liggéey nit ki nii mu dof wala mu ñàkk lam yoroon wala mu feebar wala sëyam tas yooyu dafa am bëri na ñoo xam ci loolu lañ leen def waaye boo ndomb gi moom boo ko takkee say 18 nii dugg di ko lijjant nii ku repp dëgg koy def deesu ko def. jërëjëf jërëjëf euh, cheikh bi am na solo ci ñu njëkkanteek waxtu wi jàll ci yeneen ponk yu ñu war a waxtaanee xam naa nag li ma lay laaj maa ko gën a bëgg ñu ma koy laajal xam naa di nga ma ci compal cungufu ubbeeku bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def boobu moom xam naa sax di nga ma ci compal ndax boobu moom <laughs> ñàkk ko am wóorut de. waaw dafa nekk sunguf soo xam si ñun ñoo ko liggéeyal suñ bopp. Euh, moom laa tuddee sunguf soo xam te du fenn mooy ki nga xam ne si dafay wut dafay sonn fukk door a am benn wala mën na di am alal waaye du fekkante ci loxoom comme maanaam tey bu soxla woon dix million mën naa xëy suba am deux million mu jeex bu ko téewee di ko dajale dara du ñëwaat waaye bu loolu génnee rek leneen day ñëwaat waaye dafa nekk sunguf su wala nga wala yow sax fëroo am dara loo yaakaar mu tas ku la dig du la jox boo ko jëfandikoo balaa jënt bee so moom par force di nga am i xéewal moom sunguf si moom laa tudde du fenn boo ko jëfandikoo moom moom xéewal rek a ko tax a jug sunguf soosu moom xéewal képp képp képp moom moo ko tax a jug moom boo ko jëfandikoo moom dinga am xéewal bu baax a baax moom ni ma ko waxee léegi rek boo ko jëfandikoo balaa jënt bee so moom par force di nga ami xéwal moom laa tuddee du fenn macha allah. solo acca euh, lu baax du dooy te dañ koy njëkkante fexe leen ngeen jëflanteek moom acca jaaro yi bëri nañ de waaye sa jaaro am na lu ci nekk de secret bi. waaw jaar yi bëri na lool daanaka tere boo ko jàppee sëriñ boo gis daan la sama jaaro sama jaaro nag mag naa te loolu ñuy wax ci jaaro bu doon yor nañ secret jaaro bu wér Sénégal dafa war naat waroo fi gis maanaam millionnaire milliardaire nga fi war a gis waaye lépp loo gis maanaam mu doon lu wér boo dajale woon fukki nit ñaar ñi ñoo ñooy ñooy ñooy xam sirru bu wér bi maanaam maanaam loo xam si maanaam dafa nekk lu baax du nekk loo xam dafay taxawaalu baax mu nekk loo xam te dafay dafay yomb comme jaaro euh, dafa nekk loo xam si lu am la man bi nga xam si moom laa ciy joxe bii la moom laa bind xaatim bi nii ci kaw moom moom jaaro bi gis nga boo ko takkee jaaro yi moo gaaw ci defal la ubbeeku nga am xéewal am teraanga bayra tubaab la tubaab dalay bëgg donte sax boo ñaawee moom jaaro bi bayra tubaab la bay la bayra commerce la ngay yëngu ci wàllu commerce bayra tamit jëmm la nit ku weex ku ñuul ku xonq ñëpp lay bëgg soo ko takkee lépp looy yëngu dañ cee fis dañ la ci ràññee boo ko takkee maanaam suñu borom dafa lay tàggatal nit ñi daf leen notal nit ñi ba lépp luy bëgg ci ñoom dafay yomb xam nga doomu aadama lépp lu muy bëgg ci nit la da imaa lu nekk ci nit mu soxla ko day ñëw dafay sotti ndax suñu ba daf lee tàggatal nit ñi bu doon tukki nga bëgg boo ko takkee kayit goo yor ak foo bëgg dem ci àdduna boo ko tàllee dañ koy jël waaye dees la ko delloo bu fekkee da ngaa nekk bitim réew bëgg ñëw nii boo ko takkee ngay lijjanti daf lay yomb loolu bu fekkee tamit da ngaa jàng ba yor say diplôme mun a fexe ba liggéey boo ko takkee da am ci liggéey ci nu mu gën a gaawe bu fekkee soxna nga bëgg tamit daf lay yomb jaaro bi daal bu ñu ko waxee moom mooy njariñu àdduna lépp loo xam si maanaam yaa ngi gis nit di ko ko ñeewee boo ko takkee di yaa ki yaa ki féete kaw bëri na ñoo xam bu ma leen ko joxee dañ naan ñi ma daan am ci ñoom intérêt dawuñu ma lijjan dawuñu ma faale ñoom ñoo mujjee topp sama ginnaaw di ma di am ci man intérêt jaara bi moom amul kenn ku ma koy jox ngay lijjanti dara muy jafe ak lu mën a doon nag dafay sotti ci nu mu gën a gaawee moom jaara bi waaye nag yombul nag kon nga ko dagg tiktok ko de ndax euh, xam naa li bëri ci ne ci biir euh, jaaro bi bari na nee na leen bayre sax da ciy dox rawatina koo xam ne dafa ñaaw soo ko takkee euh, n'importe nit ku mën a doon yaa xam ku xees ku ñuul comme ci mën di doon rek dina la sopp dina la bëgg te di nga jëflanteeg borom daraja yi jaaro baa ngi noonu. acca ci beneen ponk laay ñëw mu bokk ci jigéen joo xam ne nii dafa toll ci suñu borom may ko doom bañ ñu opéré ko kuy matu. comme li nga doon wax sax ci jaaro bi comme wàllu bayra ñu bëri na dañoo jàpp ne bayra bu ñu ko waxee mooy nit ñi di la tudd di la coo lool sax ci bayra la waaye bayra mooy kani maanaam mbir moo dugg suñu borom jàppandal ko di gis koo xam si maanaam lii nit ki di lijjanti moo ko gën a xam yoon we ñu am ko moo ko ëpp xel moo ko ëpp jàng moo ko gën a maîtriser kii yuutu ko ba sonn du ko jot ku ñànkaree rek yuutu ko ci lu gàtt jël ko wala nga bëgg bërëb boo toog doo ko am kenn mooy dikk déposé ñu jël ko ci num gën a gaaw yow kenn du la jël tal kee yow yaa ko gën a kee lu mu jaaxle ci yow lay ñëw laaj la ko loolu yëpp maanaam xeetu ñàkk bayra la bayra boo ko amee da ngay ubbeeku da ngay am xiwal am teraanga masha Allah waaye la laaj nga lu am solo mooy li nga xam ci jigéen ji nga xam te dafay euh, toll diggante buy am doom ñu di ko opéré loolu dama ci bëgg wax loo xam ci bépp jigéen yaa joo xam ci yaa ngi tool diggante di waaj am di matu ñu di la opéré damaa jàpp da bëgg a xaru loolu bu ma ci ñëpp xamoon hmm. fii Sénégal bàyyi nañ fi xotti biiru jàmbur ñun suñ mag njëkk ne dañ daan dañ daan tool diggante di amee doom te duñ leen opéré te jamono jooju hôpital amu fi woon kon bépp jigéen joo xam toll nga diggante médecin yi nañ dañ lay opéré wala ñun la duñ la opéré li ci gën a war daal ñëwal am na fas gu may joxe goo xam boo ko joxee nga takku ko sooy am doom doo ko yëg benn coono doo ko am te beneen bi dama cee bëgg a jël risque boo xam ne Sénégal bëggatuma fee gis ku ñuy dagg tànkam wala ñuy dagg bëtam wala ñuy dagg biiram ak ak lu ko mën a dal képp koo xam maanaam nar nañoo dagg sa tànk wala sa nar a sa biir wala sa sa bët nii ñëwal ma ma faj la waaw xam nga feebar yi dal nit ñu dagg seen tànk dagg seen bi yooyu daan na mag njëkk feebar yi dal nit ñi daan nañ dal suñ mag njëkk ñi te dañ ko daan faj ba mu wér duñ dagg seen tànk duñ duñ leen xotti waaye ku wàcc sa ànd àndu jàmbur boo dem da nga fay fekk borom mu feesu tubaab moom li xam mooy xotti waaw kon jërëjëf am na solo loolu nga xam ne fa nga daaneele euh, lu am solo la fexe leen ngeen jëflanteeg moom acca ci beneen ponk laay ñëwaat mu bokk ci samp buur bi boobu de moom ñi ko soxlaan naa bëri na de samp bi samp buur bi mooy ki xam ne si dafa nekk ci bërëb di fa am teraanga mhm. di fa am xéewal di fa jamono ji ne mu di fa yëg ak yokkutiku bëgg a sax ci bërëb boobu nit nit moom fu mu nekk fu baax rek mhm. nit ñi dañ koy xëccu dañ fay bëgg a toog képp koo xam maanaam da ngaa nekk ci bërëb ngir bëgg faa sax sa teraanga des fa maanaam yor nañ ci loo xam moom la ñuy wax samp buur lu tax ñu tuddee ko samp buur mooy que ni buur li mu nekk ndono la lu fekk bakkanam a ngi nooyu mooy continuer di jiite lool kon maanaam képp koo xam da nekk ci bërëb rek ngir bañ faa jóge dinañ la defal loo xam ne ci mooy samp buur gi lu feeg yaa ngi fee bëgg sax yaa fee kon ne di fa sax ba keroog nga fee bëgg a jóge waaye peexu doomu aadama wala xelu nit di fa nekk ngir wuutu la fa du fa nekk moom bërëb boo nekk moom yaa fay sax loolu lañ tuddee samp buur atia euh, du lépp lañ mën a waxtaane foofu dañ koy tënk ba beneen yoon te lépp rek ci xam-xam lañ ko wéeroon ànd ak Serigne Mohamed la ci diggante ñaan ak paj bi nga xam ne mu ci def résultat saa su nekk atia euh, jërëjëf kon ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yam su leeyu atia euh, fa may jeexale bokk na ci xew xew jamono mu di actualité nit ñaa ngi dëj ba léegi yàlla nañ ci yàlla musal waaye donte lépp ngir nu ñu amee ba teral seen bopp ak seen i waajur ñaa ngi topp gaal gi rek barsax door na war de ñu topp gaal yi dem Europe. waaw loolu lépp maanaam dafay war ni dëkk bi metti na te nit ñi dooma euh, gone goo la muy bëgg mooy am xéewal am teraanga teral ay waajuram loolu rek moom moo leen tax a jug ak dugal ko ci lu baax waaye man gone yi duma leen yedd ci wàll boobu sëriñ yi laa ciy yedd sëriñ si ndax lan noonu xanaa xamoo état bi dafa wàllu gaal gi da cee waroon jël ay matuwaayam ci sëriñ yi ndax man gis naa ci koo xam te ne ndeysaan ba mu faatoo ba ñu indi ko Tuubaa di ko denc ba mu ko tiimee li ñu li ñu dagg ci ndomba ci ndiggam li bëri na trop dafa nekk ndomba yu bees tàq nga xam ni kii sëriñ yi ñoo ko defaroon ndomba ba noppi garanteel ko na ko boo demee di nga àgg te ndomba yooyu li mu wóortu wër mooy boo ko boo ko tekkee doo fa fekk dara mën na am ay kayitu surnaal lañ fee def wala yeneen ak yeneen kon bëri na ñuy dem ci géej gi ñoo xam dañuy ñëw dañuy ñëw ci sëriñ mu seetal leen jox leen ndomba garanté leen ko ñu loolu moo leen gën a yokk fit ñu daal dem daat fee des kon bëri nag ñoo xam ci sëriñ yi ñoom ñoo tax ñu faatu bëree ngi dee topp gaal gi ñeen ñi sëriñ si ñoo leen rey sax fii koo fi gis mu faatu ci géej ba ñu génn ko boo ajee ndigg ni nga fa fekk ndomba ndomba yu bees tàq da lay wër ni kon dañ kaa jox garanti ko man damaa jàpp sëriñ yi dañoo yurut lu wér wala dañoo yurut xam-xam nañ bàyyi doom yi jàmbur yi ñuy tayle ci géej gi loolu baaxul nañ koy ko waaye képp koo xam ne si maanaam Euh, faatu nga ci yàlla na la suñu borom yërëm taxaare ko aj na képp koo xam sa xel mi ngi woon ci dem euh, ba ba nga tegaat ko ci suuf te jéem a toog ci réew mi euh, jéem a daan sa doole si damay wax ni liggéey taxut a am toog tamit maanaam taxuta am di nga gis koo xam si dafay toog du am dara gis koo xam dafay liggéey ba son du am dara affaire yi moom ci wàllu wërsëg la rek ak di ñaanlu suñ borom dina defal xéewal ak bu baax yàlla yàlla doole sutura ci barke ci actualité yaatal ba léegi bi ma fi mujjee dal maa ngi lay laaj ci xew-xew jamono rawatina ci président Ousmane Sonko nga naan ma Cheikh ma ne la naam nga ne président Ousmane Sonko mu ngi ci xat-xat yu jafe ma ne déet mu ngi ci xat-xat kay fi mu ne nii ndax mu nga ne ñu barricade këram nga ne waxuma la xat-xat yooyu yeneen xat-xat laa lay wax di nga ko gisaat yàggu dara ñu gis ko bisu àjjuma ñu ne ko coppet fi mu ne nii mu ngi ci prison bi fa sa bi xotaan ñen ñaa ngi naan mu ngi ci diggante dund ak dee sax fi mu ne nii sonn na fa ah li ñu waxoon de teg nañ ci gët lan nga ñu mën a waxaat ci loolu ba léegi. xam nga us président Ousmane Sonko ci waxoon rek ma lépp loo xam ne maanaam dafay waral ay wàllu coo. baaxut ci moom ne wattandiku li nga xam moom mooy wàllu coo. te di ko daw. te lépp loo xam si maanaam ñu ngi ko ci woo muy dem ci fitna na fexe ba wuy si leen ci dal ci lay amee ndam ci ñoom gis nga maanaam li ko jëroon yóbbu ko koso dañ ne benn waay joo xam si ama benn ndaw daf ko provoqué mu mu fayu ñu jël ko yóbbu kon li ma la waxoon lépp loo xam dafay waral fitna rek na fexe maanaam ba ba dalal ko waaye Ousmane Sonko maanaam du may ci mbiram comme sëriñ yi daan toog naan ku ko song ko song yàqu dootoo ko defati ñooñu xanaa daawuñu sukkandiku ci seet gu wér goo xam daa eh, ci lañ daan wax wala seet naa la wala ñoom seen seet moo daan wax loolu xam nga ñooñ kenn wurtuñoo wax te kenn wurul na seetloo sax ndax Ousmane Sonko jafe-jafe yii ko dal nii ñëpp ci teg seen bët ñëpp a ko gis waaye ba ma ko waxee nag da gis ñu bëri maanaam dañ lay woo di ci dal sa kaw wala ñu di la saaga fekk ni maanaam ñoom xamuñu sax man bu ma demoon bay far ci usman Sonko laay far te lii mu doon bëgg maa ko gën a yéene ñëpp waaye man li nga xam si moom la ma ma seet di wan ma daan ko gis loolu laa doon loolu laa doon leeral euh, di ko wax te Ousmane Sonko ni ma la ko waxee woon rek dafa naan émission euh, sama génn yi jàll laajoon nga ma ko man la kaaraange da ci tëxawut dara sero te gis nga fii Afrique la fii ma gis nga maanaam kumbaay beeg cool du loolu mooy fal nit ki mu doon président loolu mooy li ci gën a tuuti fii bala bala ngaa falu tiim nit ñi faabu nga toog ci baatin bu wér dem ci ay nit ñu samp la ba ci jamono yi nga xam si ay buur ñoo daan toog fii dañ ay tegtal lañ daan def door a door toog mhm. ay mystique lool maanaam mun munu fee ñàkk waaye Ousmane Sonko maanaam li nga xam si moom mooy kaaraange da cee taxawutoon dara da ngay gis sëriñ yu bëri yoo xam dañ naan ay maara bu Ousmane Sonko lañ wala nangam ak nangam nga xam dañuy jëriñu ci Ousmane Sonko di tedd ci Ousmane Sonko waaye di ko wutee bés waaye amuñu fenn fuñ ko féete du jafe-jafe yi ci karamam ñoom lu tax génnuñu ko teel ko ko wax mm. nu ko am na luy ñëw ci yow doxaleel nii nangam ak nangam mooy tax nga mën cee mucc waaye li ñu doon wax ku ko laal sànq ku ko laal dootu ko dafati te xoolal lii ko dal ni wala ñoom seen seet moo leen daan wan loolu ne Ousmane Sonko jamono ju ne day nekk ci jàmm jamono ju ko laal sànq. kaso bee mu nekk ndax euh, gis nga fenn foo xam ne dina fa yàggati def euh, yenn fan yu bëri wala ay weer. jamono ji ñuy waxee yow man gisuguma mu génn léegi ci prison bi jamono ji ñuy waxee yow nii te ba mu fa duggee ba léegi kenn ñëwut ci man sant ma ci mbiram waaye jamono jii may waxee yow nii. gisaguma fu mu fu mu génnee ci prison bi hmm. waaw. ku la seet si woon nga ci dara. ku seet si sax du dugg prison sax waxuma la ñu naan ay wàllu génn. gis nga li ma la waxoon rek man la Ousmane gis nga sëriñ yi raasiwoo ci moom di wax ñoo koy ñaanal. Hmm. man bu fekkoon ay yitteem ñoree na ma noonu ba ma taxoon na man maay maara bu Sonko kenn du ko joxoñ di ko wax loo ko wërta wax. ku rep dëgg koy def. acca ah, yéeme na de Cheikh Bara Ndiaye seen mbokk ñaankat la di yëngatu ci mbiram asrar comme ni yéen euh, yéen a ngi defi dog pour moom gaa ngi naa gaa yi de li ci ëpp moom fi mu ne nee nañ dee la gën a jege ko dund sax yéeme na de waaw Cheikh maa ngi ciy dégg lu bëri ñu ne dafa def euh, greffe de la faim mooy bàyyi lekk bàyyi naan waaye nañ ko xamal ni doomu daar la doomu soxna la te jàng na xam na li yàlla wax bu fekkee wóoruma nag waaye bu fekkee loolu ñuy wax mi ngi ca na ko daal di bàyyi bu fekkee nekku ca bu ca xelam nekk ba mu cee dem nay lekk ka naan te xam ne lii natt la rek dafay daal di jeex euh, nit ki nag moom bu bëggee àgg. ay muy xaw a métti xaw a naqari waaye bu fekkee mi ngi ca na ko bàyyi ñun moom ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax. du yàggate dara mu génn ah, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax te am nañ ci yaakaar du yàgg dara ñu bàyyi ko. jërëjëf ñu bal nga ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaar ñëpp tey baalu àq ñëpp di ñaan suñu borom dolli seen sutura. suñ borom dool leen sàmm dool leen aar barke li ñu ci wax ci wàllu ñaan comme ni ma la xam man ki nga xam si moom laa gën a soxla gën kaa yittewoo mooy ki nga dafa wër ba ba sonn ba gisul dara ba toog daal naa xaar yàlla nga xam si maanaam booy toog naan njariñu sarax ñaan moom daan yooyu ay caaxaan ndax ba mu juddoo ba léegi mi ngi sarax day gën a tëju ba mu juddoo ba léegi mi ngi ñaanlu aaju aaju jum am mi ngi ci ñaan te wut saafaru kooku laa gën a soxla bu ñëwee ma la ko ci nu mu gën a gaawee aleykum salaam wa